mu doon ab risque bu rëy askan wi ñoo ko gisal seen bopp ay xar-xar dal dina feeñ ci bile pont lii di dal bi moom tàmbale naa bàyyi fii nag ñu ngi si diggante Paroumba ak Lenkerin ca département bu Vélingara. noonu oto bu ñëwee ak poids euh, transport yi fa nekk donc bu ñëwee ba ci pomme il faut il ñu wàcc pour ñu mën a traverser ba mu oto mën a parce que sinon ay danger la. passager yi dañuy wàcc bàyyi chauffeur bi jéggi waaye mu mel ni bile règle am na ñu ko dul respecté donte sous bi fësaloon na ab arrêté buy interdire ñu fay jaar. bu commencé daan lii su daanee rek oto du fii daal te fii fii dafa xuuf trop fii c'est pas sûr danger la moo tax chauffeur yi di wàccee fali seen client yi ñëw parce que qualité bi baaxul fer la fer kenn du ko def pont. bile pont. ndax méngoo na ak niñ ko war a tabaxee mooy laaj buy samp luñ ci mën a jàpp mooy bile infrastructure amal na solo lool askan yu fay yeewoo. problème bu nga xam ne dafa dafa dafa dafa sonnal eh, population ñetti ñetti réew mi Sénégal Guinée eh, Guinée Bissau Guinée Conakry parce que ñaar ñoom yëpp ñooy jëfandikoo pom amaguñu pexe faw ñu fay jaar waaye ba kañ lañ fay continuer di jël yenn ci ay risques. lii di seen soxla mooy ñu defaralaat leen bile pont laata loolu ñuy ñaan musiba bañ fa am